illa an yakkoona ndare bu dafa nekk wala illa an takkoona benn lañ maxal jaddi ànd ak maam mu góor ma uxtun mbokk mu jigéen shaqiqat mu di ab xarit wala xaata ñeel ko axun mbokk mu góor li abin ñeel wàllu baay aw uxtun wala mbokk mu jigéen li abin ñeel wàllu baay aw axun wala mbokk mu góor wa uxtun ak mbokk mu jigéen li abin ñeel wàllu baay fata axusu kon day jël nisfaha genn wàllam nga mi maaja la nga xam ne xasala am na mooy dajana watu sallimu te muy jébbal maa la nga xam ne baqee des na ilayhim jëm ci ñoom daa wax ne nag ka bokk néew ba ndeeg baay bu fekkee day jigéen maam góor ne ko damay séddoog yow kat tan wax ne moom moomee bokk néew ba ndeeg baay mën naa wàññiwaale kum bokkal ci wàllu baay kooku moom nee na su wàññiwaalee ku bokk ci wàllu baay ba séddoog maam ba noppi na seet lam yore moom mbokk mu jigéen ma su yemee ci genn wàll mu téye ko ndax xam nga ne moom bu doon doon moom dong genn wàll lay doon waaye lam yor nag ca ba boolee wàllam ak wàllu kam wàññiwaale ci wàllu baay su fekkee ëpp na genn wàll lu mu ëpp genn wàll na ko jox kookee mu wàññiwaale woon ci wàllu baay bu dee kennoo bu dee lépp kenn bu leen bu leen delloo des wa sax te fekk ñoom ña wàññiwaale woon ci wàllu baay ñu nekk ay góor ak i jigéen dañ koy séddoo góor ñaar jigéen benn jot na ci andi nag ay benn benn masala bu njëkk bi mooy mbokkum jigéen mbokku néew bi ndeeg baay te nar a séddoonteeg maam dafay nekk ak menn mbokk mu góor ci wàllu baay daal di koy wàññiwaale kon xam nga ne alal ji juróomi saam lay doon maam mu góor tegg ñaar mbokk mu góor ma ci wàllu baay ma ñu wàññiwaale tegg ñaar mbokkum jigéen mi ndey ak baay te cosaan ci doon gi teggi benn su ko defee nag ku jigéen ki ndey ak baay su wàññee bennam ak ñaar yee nga xam ne moom la ka wàññiwaale ci wàllu baay teggi kon ñett mooy nekk ci loxoom dañ koy wax ne ko nag léegi da ngay jël rek genn wàllu alal ji la des nga delloo ko ki nga wàññiwaale ci wàllu baay xam nga degam juróomi saam la nag tey bu fekkoon ne juróomi junni la da ngay jàpp ne kon ki bokk néew bi ndeeg bàyyi ñetti junni ngi ci loxoom maam ñaari junni la yóbbu dañ koy wax ne ko ñetti junni yi moom ngay jël ñaari junni juróomi téeméer juróomi téeméer yi nga delloo ko ki nga wàññiwaale woon ci wàllu bàyyi ndax boobu doon yow dong genn wàll ngay doon te genn wàllu juróomi junni mooy ñaari junni juróomi téeméer bi ci topp nag mooy aw uxtun li abin ku jigéen ki bokk néew bi ndeeg bàyyi te nar a séddoon teeg maam dafa wàññiwaale mbokk mu jigéen ci wàllu baay su boobaa saam ya ñeent lay doon maam góor tegg ñaar ki bokk ak moom day bàyyi tey jigéen tegg benn ki bokk ak moom ki bokk ak néew bi bàyyi rek te wàññiwaale ko te mu jigéen moom it tegg benn su boobaa nag ki bokk ak néew bi ndey bàyyi day jekki-jekki nangu benn saam bee nga xam ne moom la ko féete ca wàllu baay tey jigéen teggi woon daal di koy boole muy ñaari saam bu yem ci genn wàllu alal kese yem ci nga xam ne kon du delloo dara kooku yem wàññiwaale ndax bu téyee ñaari saam yi day yem képp ci genn wàllu alal ji te bu doon doon it loolu lay doon. bi ci mujj nag mooy ki bokkul néew bi ndey bàyyi tey jigéen daa wàññiwaale ñaar ci wàllu bàyyi wàññiwaale na ku góor wàññiwaale na ku jigéen loolu nag boo ko seetloo ak moom ci boppam ak maam bu góor. booy séddalee saami alal ji juróom-benni saam lay doon maam góor tegg ñaar ku góor kañ wañuwaale ci wàllu baay tegg ñaar jigéen ci cosaan ci doon gi bokk néew bi ndeeg baay tegg benn ka wañuwaale itam ci wàllu baay te muy jigéen tegg benn su maam bu góor demee ci bokk néew bi ndeeg baay tey jigéen day mel ne ñeenti saam mi ngi ci loxoom ndax teggi woon na benn te ku góor kee mu wañuwaale woon ci wàllu baay teggi woon na ñaar ku jigéen ko wàññiwaale itam teggi woon na benn kon boo seetloo benn ak ñett ñooñu ñeent lay doon xam ne tey bu alal ji doonoon juróom benn junni saa bu nekk nekk ab junni kon fii mu nekk nii dana téye ci loxoom moom mbokk mu jigéen mi ci ndey ak baay ñeenti junni dañ koy wax ne ko nag da ngay seet boo doon yow dong war a fab genn wàll nga téye genn wàll gi nag la des nga jox leen ko ñoom ñaar ñi nga wàññiwaale ñu seddoo ko góor ñaar jigéen benn su boobaa kon ñeent junni nekk ci loxoom day jël ñetti junni ya mu daal nekk xaaju alal ji benn junni ba nag mu jox ko ñaar ñooñu mu wàññiwaale te kee di góor kee di jigéen ñu séddoo ko góor ñaar jigéen benn wala yur baa deful dogal lil axawaati ñeel mbokk jigéen ya maxal jaddi ànd ak maam mu góor illaa fil garra in rek ci masalam garra wax daxaa moom rek wasana dukuruha te xalsat nañ koo tudd bax daxaa sa ci gannaaw lii nee na maam mu góor bu taseeg mbokk yu jigéen yi dañuy faral di séddoo rek waaye kenn du wutal mbokk yu jigéen ya benn cër bu ñuy jagoo lu may nag booy jàng mel ne masala mu ñu tudde masala mu xarra da nga gis mbokkum jigéen ma ñu wutal ko fab cër waaye foofa it kat dañ ko leeral ca kanam wutal nañ ko fa ab cër waaye dañu mujj rek dellu ci séddoo wa yaris dana doon al mawla ka xewli ngor al a'la ka gën a kawe itan faradan dem wéet na jami xal maali booyum alal ja kaana moo xam nekk na rajulan di góor aw imra'atun wala muy jigéen nee na ka nga xam ne moo goreeloon jaam bi nga xam ne moomu kilifteef ga bu fekkee ne moom rek fi nekk ci ku war a doon keneen ku war a doon nekku fi kon lépp lay jël moo xam góor la moo xam jigéen la la kookee mu yilif bàyyi lépp lay jël bayin gaarandeem nekk na maa xoo ànd ak moom ahlu sax mi nañ ëpp cër kaana kon mu nekk lil moolaa di ñeel ka xewli ngoro maa la nga xam ne baqee des na bax da ahli siha mi ci gannaaw ñun cër ya su fekkee ne yow yaa goreeloon kii génn àdduna tey xam ne yaa moom kilifteef gi waaye nag dafay bàyyi ñu war a doon te war a ami cër ki mu bàyyi fi soxna mbaa mu bàyyi fi doom bu jigéen mbaa mu bàyyi fi yaay mbaa maam bu jigéen kon na ngay bàyyi borom cër yi génn seen cër la des rek moom ngay moom yow mi nga xam yaa ko goreeloon moom kilifteef ga lu des rek yaa ko moom parce que su fekkee desul dara nag doo am dara léegi ka nga goreeloon bàyyi la doom bu góor mbaa sët bu góor mbaa bàyyi mbaa maam ju góor mbaa kenn ko war a doon ci askan te war a jeex àll su boobaa yow mi nga xam yàgg gore loon doo am da ndax desul dara dara wala yori su lu doon almawla ka xewli ngor axan xasabati ànd ak way asabaal ña mi ngi noonu sax way asabaal ñi mooy ñi mën a jeex àll bu fekkee ne ñooñu am nañu mbaa kenn am na ci rek kon moom mi gore loon moomun kilifteef ga du am dara dara ndax desul dara dara waxoo moom nag axàq moo gën a yeyoo min zawil arxaami ci waroom jege ñaa lay ndey ya allazina ña nga xam ne laa sax ma di tub cër lahum di leen ñeel fi kitaabi laay téréb yàlla bi xasa teet na wa jàll dem màgga teew lu nee na moom mi goreeloon moom kilifteef ga bu fi nekkee ña féete ci wàllu yaay ñi nga xam ne lislaam waxalu leen cër ña féete ci wàllu yaay moom te lislaam waxal leen cër mooy rek mbokk ci wàllu yaay mbokk ci wàllu yaay dong ñoom la lislaam waxal cër ñooñu moom buñ fi nekkee dañ jël seen cër bu desee moom mi goreeloon jël des wa waaye nag koo xam lislaam waxalu ko benn cër lu mu jege-jege kooku mel ne ni jaayam ak ñi nga xam ñëpp ci wàllu yaay te duñ doon suñ fi nekkee ki nga xam ne moo goreeloon ka goreeloon mooy jël alal ja waaye ñoom duñ am dara wala yarisu doon min sawil arxaami ci waroom jege ñaa lay ndey illaa man daray koo xam ne laxoo ñeel na ko saxmun ab cër fi kitaabi laay téréb yàlla bi nee na wàllu ndey moom lislaam da koo fonkut léegi ñëw ci alxuraan rek suñu borom tudd ca seen dono te muy bokk ci wàllu yaay rek ñoom dong ñoo ci doon mooy wa in kaan rajulun yurasu kalaalatan aw imra'atun jooje nee nañ dañ cee jublu dono bokk ci wàllu yaay foofu rek moo ci ñëw. wala yarisu du donn an nisaa'u jigéen ña minal walaay ci kilifteef illa mandare la nga xam ne ataq na goreel nañu ko. aw jarroxoo wala ñoddi ko man ka nga xam ne ah taq na goreel nañu ilayhin na jëm ci ñoom bi yu laa des ci ak jur aw xitxin wala goreel maanaam jigéen moom lam goreel moom ci boppam la mën a doon mbaa mu goreel koo ko jur mbaa mu goreel koo ko goreelaat ak loolu rek la jigéen mën a doon waaye te yow góor nga bu amoon koo bokk ndeeg baay muy jigéen sa baay génn àdduna wala sa yaay yow képp yaay doon kilifteef ga waaye moom mooy jigéen moom du doon ki góor kilifteef jigéen moom day goreel boppam mbaa mu goreel kooku goreelaat mbaa mu goreel kooku am doom jur kon dañu bëgg wax ne fa iza a'taqatil mar'atu al amata wa hiya hamilun fa wala'ul amati wal janini lil mar'ati su jigéen goreelee ak jaamam bu jigéen te fekk jaamam bu jigéenam boobee ëmb kon day moomam kilifteefuk jaam bu jigéen ba moomam kilifteefuk loolee jaam bu jigéen ba ëmboon te ba waaye gis nga lam ca teg wa ma waladat ba'dal xitqi fa inna walaahu li mawali abihi ay allazina a'taqu abahu fa law inqarada mawali abi la kaana alxaqu li baytil maal wa isaj tamaxa ndem dajana man koo xam loxo ñel na ko sax mun cër maalum bu di buñ xam fii kitaabillahi téereb yàlla ba wa kaana te nekk daalika loole ak sara yëpp minal maal ci alal ja udduxile kon dugaleef xalihim ci ñoom kullihim képp ci ñoom ad dararu lor ja wa qosimat te seddaleef al faridatu masalama xalaa mablaxi sihaamihim ci kem seen cër maanaam buñ ne kee war naa am lee kee war naa am lee kee war naa am lee te boo ko dee seet boo joxee kee jox ki am ci ku amut mbaa am ku manqué le su boobaa kon dañ koy sompi rek ba kenn ku ne am la nga war am ci turwa te doo ko am dëgg-dëgg ci jëmm ja mi ngi mel ne rek ku faatu bàyyi jëkkëram ak mbokkam mu jigéenam mu mbokkal ndey ak baay ba noppi nag bàyyi fa yaayam xam nga loolu boo ko dee seet jëkkër mi nga tudd daa war am genn wàll mbokk mu jigéenam mbokk moom day ak bàyyit genn wàll war a am nga xam ne kon alal moom boo ko defee ñaari xaaj ku ne tegg benn day jeex tàkk te xam nga ne yaay war naa am foofu sulus ab ñetteel boo defee ñetti xaaj mu tegg benn ndax doom amut sët amut lu mat ñaari bokk amut benn bokk fi nekk kon masala mi boo ko doon seet ci misaal juróom benn mooy doon cosaanam ndax yaay day bëgg nga def ñett mu tegg benn jëkkër ak mbokk mu jigéen bëgg nga def ñaar kenn ku ne tegg benn te deux ak trois dañoo safaanoo da ngay jël kenn ki multiplier ci kenn ki bu doonee six nag gis nga ne boo joxee jëkkër ñett muy genn wàll jox mbokk mu jigéen ñett muy genn wàll du des dara yaay du am dara ba tey boo joxee kenn ci ñoom ñaar genn wàll njëkk jox yaay ab ceeram muy sulus te mooy deux ndax deux mooy sulusub maanaam mooy ceerub six kon boo joxoon kenn ci ñoom ñaar ñett muy genn wàll nga jox yaay ñaar muy ab sulusam benn keppay des nga xam ne kon ka ca des moom du am genn wàll lu mel noonu dañ koy sompe dañ koy sompe mooy dañuy seet kenn ku ne ñaatu saam la war a teggi ñu saam alal ji ba mat saam yu toll noona xam nga nag yaay daa war a teggi ñaari saam mbokk mu jigéen ak jëkkër kenn ko war a teggi ñetti saam kon loolu boo ko boolee juróom-ñetti saam lay doon kon alal ji cosaan juróom-benni saam loon waaye da nga koy somp mooy da nga ci dolli ñaari saam alal jëpp ngay tas rek def ko juróom-ñetti saam su ko defee jëkkër teggi ñetti saam mu nuru genn wàll mbokk mu jigéen day ak bàyyi teggi ñetti saam mu nuru genn wàll yaay teggi ñaari saam mu nuru genn wàll loolu moo tudd sompo da nga jàng ci téere mat nu raxbiya masala yi nga xam ne ñoo koy def ak nañu koy defee incha allah wala yu aalu deful sompal lil uxti ñeel mbokk mu jigéen maxal jaddi ànd ak maam góor illa fil xarraa yi ndara ci masalam xarraa wax daxaa moom rek nee na maam góor bu taseeg mbokk mu jigéen la muy nangu rek mooy seddoonteeg moom waaye duy nangu jox mbokk mu jigéen mu ab cër mu ànd ak maam amu cër ne moom lu may nag ci mel ne masala mii rek ndax xam nga maamu góor bu taseeg mbokk mu jigéen moom buñ séddoo maamu da koy ñaar jële kon nag maam foofu lay ëppalee ji bu doon jël sulus waaye nag masala mii moom des na fa sompal mbokk mu jigéen muy loo xam ne dafa gaar rek waaye bokk te sax daañu sompal mbokk mu jigéen ma ba mel ne lee moo di ëpp ci dem waaye du tee rek ci séddoo la ñuy dellu day mujj rek séddoo ak maamu góor des na ko sompal ba àggal ba mel ne jël na ci dem waaye duñ mujj ci noona dañu mujj rek moom maamu góor ñu séddoo boole wàllu maamu góor ak mbokk mu jigéen mi ñu séddoo lépp góor ñaar jigéen benn masala maa ngi nii waxiya moom imraatun jigéen la tarakat joj bàyyi na zawjaha jëkkëram wa ummaha ak ndeyam waxtaha ak bokk bu jigéenam li aboy ne ñeel ñaari waajur aw li abin wala ñeel wàllu baay wa jaddaha ak maamu mu góor kon fal soo ji ñeel na jëkkër ja ak nis fu genn wàll walil ummi ñeel na ndey ab tulus tulus walil jaddi ñeel na maamu góor ak sudus sudus falamma varaxa ba jeexee almaalu alal ja wax yi la sompaleef na lil uxti ñeel mbokkum jigéen ma bind su ca genn wàll ga talaasat ñett suma jumi ha topp booleef ileehaa jëm ci moom sax mu jaddi cërub maamu góor ma masal mi nee na jigéenu faatu bàyyi jëkkëram ak yaayam ak bokk mu jigéen moo xam ne bu la neexee ne ñoo bokk ndey ak baay bu la neexee ñoo bokk baay ndax du tax moom cër ba soppiku nga boole ci maamu góor nag su masal mi demee nii jëkkër day am genn wàll kon say boo def alal ji juróom benn xaaj li war juróom benn xaaj nga def ko ko mooy maamu góor ab juróom benn lay teggi moo tax sudus kon nga def siis muy cosaanu masala bi koy sa jëkkër teggi ñett muy genn wàll yaay teggi ñaar muy ceer muy sulus maamu góor teggi benn muy sudus alal ji jeex tàkk nag ndax xam nga boo génnee juróom benn la boo génnee ñett dellu génnewaat ñaar dellu génnewaat benn day jeex te mbokk mu jigéen mi daa war a am ci foofu te genn wàll war a am kon li nga defoon juróom benn saam alal ji mu yokkuwut waaye danga koy boolewaat tas ko ba def ko juróom ñeenti saam waaw ndax ndegam mbokkum jigéen moom jëkkër ñoo war a tollool genn wàll kon alal ji moom lam def lam doonoon dara yokkuwu ci waaye da ngay tas nag saam ya moom ba mu doon juróom-ñeent te bàyyi juróom benn yi suñ defee noonu ba noppi nag maamu góor ne ah kon kat ndegam yoon may na ma ma seddoon teeg mbokk mu jigéen bi gannaaw bi ngeen ko sompalee ba mu am ni sif kon man léegi bàyyi naa saab su dus day seddoon teeg moom su boobaa nag boo boolee benn bi maam teggi woon muy sudus ak ñett ñi nga xam ne mooy ñetti mbokk mu jigéen ñi xam nga ñeent lay doon te ñoom dañoo war a séddoo góor ñaar jigéen benn kon xam nga bu kee teggee ñaar kee teg benn faaw lay des benn day damm loolu nag bu fekkoon da ngay séddalee ci machine rek moom wala ci stylo ci ni ñu baaxoo defi calcul ci ni tubaab bi jàngale moom da ngay boole rek ñeenti saam yëpp diviser ko trois boo ko diviser trois la génn rek mooy cëru mbokk mu jigéen ñaari cër ya maanaam loolee génn boo ko multiplier deux muy am ñaar muy ñaari cër la génn mu daal doon wàllu maamu góor waaw fekkoon ne moom da ngay seetle rek noonu moom ci machine rek wala ci stylo calcul rek noonu doo ci sonn da ngay daal di boole rek benn cër ba maamu góor am ak ñetti cër ya mbokk mu jigéen am diviser ko trois bu ko diviser trois rek benn ba la mbokk mu jigéen am ñaar ña maam ji góor moom ko waaye nag bu dee ñoom ñi nga xam ne daan def ay saam nag moom moom lay wax naa fa yokk sa mu def na séddale jamihu zalika mboolem loolee bay na xamaa ci seen diggante xala sulusi ci kaw ceer ba laxaa ñeel mbokk mu jigéen ma wartulu sëy ak ñaari ceer ya lëxoo ñeel maamu góor ma fa tablu ko tamuy mat mooy tamuy jot moom masala mi sab xatan juróom-ñaar waa isii nag ñaar fukk sax man ci ay cër yene bu doon ci ñoom li ñuy séddale moom faaw masala mi dema dem ba ci wenn seet la koy waral mooy ndegam maamu góor ak mbokk bu jigéen mënuñoo séddoo ñeent yi yor dañuy wax masala bu damee da ngay xool ñu war a teggi cër ya luñ defanteeg cër yi war a teggi dañu xool nag kon ñu war a teggi cër yi ñett lañ ndax xam nga maamu góor da nga koy jàppee ñaar ndax ñaari saam lay teggi ak mbokk bu jigéen kon ñett lañ saam yi ñu teggi moom ñeent la muy kaat dañuy jàpp ne foofu dafa def tabaayun ñett ak kaat dañoo def tabaayun trois ak kaat su boobaa da ngay jël limu bopp yi muy mu muy trois nga multiplier ko ci cosaanal masala ma ca nam sompoo waaw xam nga cosaanal masala mi juróom benn la woon waaye somp gi daa tax mu demoon neuf da ngay jël trois nag léegi multiplier ko ci masala mi ak nam sompoo mu daal lay jox trois fois neuf muy vingt-sept loolu moo koy indi ci vingt-sept trois trois fois neuf vingt-sept nga ne waaw loo xam daa nekk juróom-ñeent léegi mu soppiku ñaar fukk juróom-ñaar lu may xàmmeetee kenn ku ne lu ci wàllam ñu ne da ngay xool kenn ku ne lam amoon ci neuf nga multiplier ko ci trois lu waaye amoon ci neuf rek da ngay xool li nga multiplier masala mi te mooy trois rek lu waaye amoon ci neuf rek multiplier ko ci trois su ko defee nga ne jëkkër yi amoon nga ci yow ci neuf yi amoon nga ci trois nga waxal ko trois fa trois neuf kon jàppal ne kon jëkkër moom léegi neuf la mooy wàlla nga ne yaay yow de amoon nga ci deux ci juróom-ñeent ya nga waxal ko deux fa trois muy six kon léegi yaay moom six lay am léegi nga ne maamu góor daal ku seet yaag mbokkum jigéen mi yéen ñeent moo nekkoon seen loxo ndax da ngaa jëloon benn kee ñu sombal ko ñett nga ne man bàyyi naa damay seddoo moom kon ñu waxal leen 4 fa 3 muy 12 xam nga bu doon 12 nag dana yomb seddoo ci góor ñaar jigéen benn ngay daal jox ñeent yi mbokk mu jigéen jox juróom-ñett yi maamu góor loolu wax naa xala sulu si laxaa maanaam 12 yi ci boppam rek boo jëlee ceer ba muy 4 ya moom la mbokk mu jigéen may moom ñaari ceer yi 12 yi te mooy 8 ya waaw kay loolu la maamu góor ma di moom loolu jublu ci xala sulu si laxaa wa sulu say ni la waaye nag moom masala moom buy fàttali moom boo doon calculer rek day yomb loolu moom nga daal di boole ñeenti cër yi rek divisé ko trois rek moom la génn rek moom la mbokk bu jigéen am la ca des maam ji góor moom ko baabu jumalin lii buntub ay mbooloo la minal faraidi ci ay farata wa sunani ak ay sunna al waajibati daa war a firi yee di aji war waaye dañ ci jullu alwaajibati yeddi ñu feddali war raxaa ibi ak xeymemteef ñenn ñi dañoo aadawoo buñu demee ba ci mujjug téere ba ñu indi benn bunt boo xam ne dañ cay gàttal lañu wees woon lépp benn yoon moom nag mu def noonu moom it daal ne lii buntub ay mbooloo la ci ay farata yi ma waxan di ko waxaat ak ay sunna yi ma waxan di ko waxaat léegi mu ne war raxaa ibi nag def ko jam xu daanaka jëru ku neen ndax yoonu maali moom nee nañ benn rax yi batul am te mooy ñaar rakay fajar alwudu njàpp li salaati ñeel julli faridatun farata la faridatun nee na jàpp ngir julli mbaa leneen loo xam ne dafa laaj njàpp njàpp moom mu farata la waxuwa moom mushtaqun lu ñu xare la min alwadaati ci alwadaa bi fi di ab taar nee na moom nag cosaanul baat bi ngi bàyyikoo ci alwadaatu bi fi di ab taar ndax jàpp day taxa taaru ci bitti taaru ci biir taaru ci bitti bi xam nga ko taaru ci biir bi nag mooy yàlla faral la say bàkkaar ka nga cey amee illal madd maddata ndariga laxndiku wal istinshaax ak salaxndiku wa masal udunayni ak masa ñaari noppi ña min ku ci jàpp fa inna dalika naka loolee sunnatun sunna la bi mu ne jàpp farata la daa mel ne kon lépp lépp day farata moo ne ne am na ay sunna kët la ci xaw day waar nag mooy da caa génn rek galaxndiku ak saraxndiku ak masa noppi ne sunna la mel ne kon amul yeneen sunna mbaa amul yeneen lu tudd ay ngëneel mbaa yu mel noonu waaye nagam jàng nga ko feneen ak feneen rek loola du ci wàññi dara wasiwaaku soccu mustahabu nu ñu sopp la mu raxabun te lu ñu xemem loola fii ci moom soccu dañ koo taamu lool la ci gën nag mooy bala ngaa tàmbalee jàpp ngay jël bant soccu nga lax ne ko tuur door a tàmbalee jàpp teewul nag boo bàyyee bay jàpp nga soccoo sa baaraam itam baax na wal mas fu masa xal lu ko fay ni ñaari bot ruxsatun ak yolomal la wa tax fii funte ak woyofal la boo dee jàpp raay ca kaw bot ya nga sol rek te bañ a summi bot ya di raxas tànk ya weesoo nañ buntam ak jàpp ndal la ak yombal la gu yoon maye wax nañu sart yaak yépp wal xuslu cangaay minal janaabati ci janaaba wa damil xaydi ak dereti mbërëg wa nifaasi ak dereti wasin faridatun farata la sangu farata mënta ñàkk farata la la koy sabab nag mooy amee janaaba ba jigéen ju dereti mbërëgam jeex ba jigéen ju dereti wasinam jeex bokkoon ci koy waral nag ab jullit bu faatu dañu war koo sang bala ñu koo jébbal boroomam wa xusul jumuhati cangaayul ajuma sunnatu sunna la cangaayul ajuma lu ñu fonk la sunna la wa xusulul xiiday ni cangaayal yaari xiid yi mustahabu lu ñu sopp la cangaayal koriteeg tabaski lay wax moom lu ñu sopp la wal xuslu cangaay xalaaman war ka nga xam ne aslama tuub na faridatun farata la li ànd xoo ngir naka moom junubun aji ame janaaba la ku tuub dugg ci lislaam dañ koy sant mu sangu farata ci kaw nag mu jàpp ne mas naa amee janaaba de bu ko wóoree ne mës amee janaaba benn yoon du aajowu muy sangu farata waxusul mayiti sang ab néew sunnatu sunna la daa wax ne sang ab néew sunna la waaye wax ji gën a wóoru mooy fardu kifaay la yem ak julli gaag denc ga muy suuga wasalawaatu julli ya alxamsiya di juróom faridatun farata lañu julli juróom farata lañu ay ponk lañ ci julli juróom farata lañu ay kenn lañu sax ci kenn yi lislaam wa takbiratu ihrami kabaru harmal faridatun farata la wa baqi takbir di aji desi tabarga sunnatu sunna la allah akbar bi ngeen ñi ko wax tàmbalee ko julli gi farata la allah akbar boo waxat nag ci julli gi muy sunna wa duxul tàbbi ga fi salaati ci julli ga bi niyatil fardi ànd ak yéene farata ja faridatun farata la yéene ji nga yéene boo dee julli te yéene ji day aajo woo mu ràññiku bu dee tisbaar nga yéene tisbaar bu dee takkusaan noonu bu dee geneen noonu yéene jooju farata la waraful yedday ni yëkkati yaari loxo ya sunnatu sunna la yëkkati say loxo booy def kàbbar armal da ko tuddee sunna waaye wax ji gën a wóor ngëneel la agul ci sunna wala xiraatu jàng nga bi umil qur'aani ci fatiha fi salaati ci julli faridatun farata la wa ma saada lu dolliku wa ma saada lu dolliku xaleha ca fatiha ja sunnatu sunna la waajibat mu sudi suñ feddale dana jàng fatiha farata la ci julli juróom gannaaw fatiha ji nag bu dee ràkk bu jëkk mbaa bu ñaareel la nga cay teg mi aw saar mbaa muy lu wecc aw saar ni ki laaya mbaa ñaare laaya jëm noonu ba tey loola sunna la wal xiyaamu taxawaay ba war rukoo ak rukoo ba war sujjóot ak sujjóot yépp faridatun farata la taxawaay da ci jublu taxawaayu jàng fatiha ndegam mën ngaa taxaw ak taxawaayu kabru armal taxawaay yooyu farata lañu ci ku ko mën rukoo ak sujjóot ba tey farata lañu wal jëlsatu jotaay ba al ula ba jëkk sunnatu sunna la wa taaliyatu boobu ñaareel ba faridatun farata la daa bëgg wax ne taay bu mën doon dana koñ ci kanam sax waaye daa jublu jataayub taay bu jëkk ba moom lépp sunna la jataayu nag ñaareel ba nga xam ne te ngay sëlmale moom jée ba ngay waxe asalaamaaleykum moo nekk farata loolu jublu ci wasaaniyatu faridatun da lay jiitu jataayu wax gi asalaamaaleykum moom am na taaya am na julli ci yonante bi am na ñaan diirub ngay taaya muy jataayub taaya ja sunna la ba tey julli ci yonante bi sunna la ab jataayam sunna la ñaan lu ñu sopp la ab jataayam sunna la waaye wax nga asalaamaaleykum nag day farata ab jataayam di farata moom la wañu ci foofu ci naa wasaaniyatu faridatun wasalaamu salmal ba faridatun farata la wa tayaamu ndeyjooru bi ci moom xalilan tuuti sunnatum sunna la wax gi asalaamaaleykum farata la boo koy wax na nga xaw a dumóoyu tuuti ba ku la féete gannaaw seen sa pegg lex loolu da ko tuddee sunna waaye ngëneel la agul ci sunna nday joor googu ci bi ngay salmal dañ ko sopp rek mi ngëneel waaye agul ci sunna wa tarkul kalaam yi bàyyi wax fi salaati ci julli faridatun farata la bàyyi wax ak bàyyi lépp lu dàqonteeg julli xam ne mënta ànd ak julli nga bàyyi ko ba julli ba noppi farata la man nga ne ab man nga ne ab sart la ci wérum julli ga da ko wàññiwaale nag moom ci farata yi wa tashahudaani yaari taaye sunnatu sunna la yaari taaye moo xam taaye bu jëkk la moo xam taaye bu mujj la bu mu ci mën doon rek sunna la fekk weesoon nga seeni jataay wal xunóotu xunóot fi sukki ci suba xasan aj rafet la walay sa bi sunnatin waaye du sunna xasan da ci jublu ñu sopp day wane ne xunóot suba rek ko am te lu ñu sopp la waaye àggul nag ci am darajay sunna was caqbaalu xiblati jublu xibla faridatun farata la jublu xibla ab sart la ci wérub julli ga ndegam man nga ko te fàttewoo ko moom da ko waññiwaale ci farata yi wa salaatu jumuhati julli jumaa wa sax yi ak dox ga dox ga mooy dem nga rek ilayha jëm ci moom faridatun farata la julli jumaa kum war nga taxaw ca def ko farata la ci yow dem nga itam mënta ñàkk ndax moom may su ko tolloole faaw nga dem ba ci jumaa ja mënta ñàkk wala witru wetar sunnatum sunna la waajibatum suñu suñu feddali wetar julli sunna la goo xam ne mboolem julli sunna yi moo ci gën a dëgër wa kasaalika naka noonu salaatul iidayni jullik ñaari xiid ya wal xusuufi ak jullik buur wal istisqa ak jullik mbaaw julli korite tabaski lu ci nekk julli sunna la julli muuru jant maase nañ ci ne sunna la julli muuru weer nag moom sopp ga moo ca gën a bari ñu ko wax julli mbaaw itam sunna la moom maase nañ ci wa salaatul xawfi julli ragal waajibatun aji war la amara digle na allahu yàlla subhanahu sorel naa bu lépp leelu ci moom wa taxalaate mu kawe bi xaa ci moom wax wate moom fi alun jëf la yestadrikoona joj danañu dabaatale mooy danañu amale bii ci moom fa dalal jamaaxati nga ne lal mbooloo ju julli ragal weesoo nañ ko ci buntam nañ koy defee moom sunna la soo xam ne def ko dana tax nga am gëneelal sunna nde sax buñ defoo ñaari xaaj mbooloo me daal julli àggale daal dem xeexi ñeneen ñëw julli julli gu mat daal di xeexi ko it mu baax waaye waaye nag noonu ñu waxe woon ñu defe ko noona muy anam ak sunna googee waaw kay dana tax ñu am ci ngëneelul topp ga sunna wal xus lu cangaay la li doxoo li màkkata ngir dugg màkka mustaxab lu ñu sopp la